bu yiw bii ñu di ci am mbégte nag bu baax a baax ndax ndaw bu nekkee ci aw yoon di nab nabi bu gisee kilifa am xelam dina dal yaakaaram dina dolliku aw fitam dina gën a ñeme te kuy dox ba gestu gis leen am xelam war naa dal kon Mbàkke yàlla na taxawaay bi yàgg mbooloo mi nag ñi ngi nii toog ginnaaw bu say kàddu jàllee li nuy sàkku mooy liggéey bi yàlla na ko sëriñ Touba nangu yoon wi nu dëkk dëkkmal jëm ci yàlla na ci àgg loolu daal lañuy ñaan ci mbooloo mi tënt seytaane ticc loolu mbàkke dinañ ko dëxañ ci suñ biiri wax waaye xam naa li yàlla ci ñun ak li ci gën a jaadu sax yaa nu ko gën a xam kon duñ def lu jox la kàddu gi rek bàyyee la ak sunu bopp li gën ci ñun nga ñaanal nu ko sunu boroom sëñ Tuubaa defal nu ko ci barkeb guddi gi wasalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bokk jullit yépp nuyu bokk taalibe yi di ci jiital suñ kilifa gu tedd gi muy sëriñ Cheikh Oumy Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal sëñ bi xam naa wax ji du mën a gudd ndax duy teggin sax ñu fi yëkkati kàddu waaye ñu ngi sant yàlla bu baax bi nga xamee ne suñu borom boole nañ ñu ci mbooloo mii nga xam ne am na lu ma xam ci ñoom tuuti ci li ñuy sant yàlla mooy ni ko sëñ bi waxee kuy liggéeyal sëñ tubaa ba sëtëb sëñ tubaa ñëw loolu mënatoo am dara lu ko kowe ndax boo gisee <clears throat> yoonu murit ni ko sëñ tubaa eh, sose ni mu ni mu ni ko organisé mooy dañ naa diw diwee sama sëriñ diwee sama seriñ ab sëriñ moom benn la mooy sëñ tubaa waaye nag <clears throat> sëñ bi moom lu muy def day leer day bëgg kenn ku ne nga am foo jaar foo xam ne bu ëllëgee day doon loo xam ne seere <clears throat> lay doon sa digganteek moom kon nag bu nit ñi ñii buñ dee liggéeyal sëñ Tuubaa ba nga ñëw ci dañu dañuy ñaan nii ñu ñii ñu ko ànd ak yow su ëllëgee nga seedeel ñu ko fa sëñ Tuubaa xam ni bëgguñu doon dara lu taalibe sëñ Tuubaa te ñii tamit waxuma ko ngir bëgg lu neex kenn waaye li ma xam ci ñoom mooy ñu gëm sëñ Tuubaa lañ ñu sellal liggéey bi lañ ndax xasida yi ak alxuraan ci lañ nekk ak joxe seen àddiya ci liggéey semaine bu jot semaine benn semaine bu jot ci at mi yëpp dina bés semaine bu jot dina wàcc benn kaamil bu bés bii ñëwee moom ay limi lim la ñuy wàccee xawma sax ñaata la moom. kon it ay taalibe ngeen waaye maa ngi sàkk ci yéen kenn ku ci ne nga fasaaleel ko lim li ko sëñ bi di liggéeyloo ndax sëñ bee ko liggéeyloo bu ko liggéeyloo wutan du ko boole ci boppam waaye nag taalibe sañ ñaa ñaanal ab sëriñam ngeen ñaanal ko suñ borom musal ko ci ndog yëpp mu àgg te ñu moom jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi sama suma bokki talibe yi maa leen di siyaar bu baax a baax te di leen tatagal te di leen wax uh, alhamdulilahi rabbil alamin ndax it kat nii lañ fi teewoon daaw kon buñ ko fi teewaatee rek war nañoo sant yàlla bu wér wér jataay bi nag nun démb lañ fi ñëw ci guddi quatre heures du matin laa egsi ci dëkk bi ndax biñ demee ci kër sëñ ba ci jataay ba ci xasida yi ban fa jógee bi ñu kii ba noppi xam nga dafay xaw a Tuubaa dafa tàng ban fa jógee lañ daal di jóge ci yoonu ñëw jataay boobee nag sëriñ bi ko def nan ko ñaanal yàlla wan wan ñu kiimaan ci moom mu yàgg fi yàgg woo xam ne ku fi mas a toogal sëñ Tuubaa rek nan ni mu fi yàggee nanu yàlla wan ab ab yàggaay ci moom ndax li ko waral mooy man gis naa fa ñoo xam ne ba ma leen gëjee gisal léegi mën na fukkeet te noo bokk sëñ Tuubaa te xam nga sëñ bi dafa doon koo xam ne kenn ku ne man ngaa ne fa nga ne ne ca moom te doo yàqal sa morom dara waaye dajale gi muy dajale nit ñi ak bokk yi ni ñu gisantee ak ni ñuy saafantee loolu rek la ci jublu jataay boobu nag yàlla na ko yàlla boole jataay bii sëñ Tuubaa nag dafa soxlootut am ak màggal ak ngone gone la soxla te yéen a ngi nii lii ma fi dégg léegi am na ci ñoo xam ne ña nga juddoo ca Lambaay ca Bawal am na ñoo xam ne fii la ñu juddoo waaye lu ci mën a xew na ngeen xam ne sëñ bi moom leen soxla yéen a ngi ci bu ngeen gisee nu jógit nag am pas-pas bu ñu xam ci yéen ak yéene ju ngeen am ci sëriñ bi te am na ci loo xam ne sax sëñ laaj bi ba ngeen dem ci sëñ ba booba da ngeen maa waroon a gis ma ànd ak yéen ba ci sëñ ba man sama xarit la ku fi sëñ Tuubaa nekkal rek man danaa fexe ba danaa jaxasoo yow jaxasoo goo xam ne nii lu ma bëgg a wax yow dinaa ko wax ndax du ma ndax du ma la wax lu dëgg te la ma lay wax te xam naa seen pas-pas diggante moom mii moom mii nag nawle la mamam mamma aaram fukki doom ak ñaar la ñaar yi jigéen fukki doom yi nag mam balla mooy am caatam mam balla maam moom noo ko bokk mamma aaram ba mam balla jàllee la jëm ci kaw moom kenn desatu fi ci ñooñu sëñ abi bu Mbàkke fi mu joon mën a jëppeñ jumkat sëñ Sohaybu te ba mu demee léegi nag li ci des lépp noo bokk mel na maam yëf yi nag dee su ko may dee su ko saraxe dee su koy jaay rek jënd rek moo ci mën a may dara te noonu ginnaaw mën noo tàggoo mënuñu leen a wàcc mënu leen a maye ànd ak yéen lañ mën kon buñ ñoon kenn du leen gën nañ leen di ban a nag mooy jël li ñu yore fi mu ne nii yóbbu ko roog seen bañ ba gën a sori ta gi dañ ko fa yóbbu te kepp ko denc ko te sax ci xasida yi tey liggéey yi tey denc te lu ngeen am dimbale ci seen i waajur bu ngeen ko defee lépp mën naa baax sëñ bi nag noppi na ci noonu lañ leen dimbalee rek lañu dimbalee ñun nag duñ ket ko duñ tiitaru ñun suñu waajur noonu lan amoon da ko jox sëñ Tuubaa noonu ñun yéenay suñu nawle kon fu ngeen ne war nañ leen fa fekk waaye nag booñ sañoon kenn di leen gën kii nag sama xarit man matuma seere sama digganteeg moom xale la waaye ku baax la man nawloo naa ko moo tax bu ma wooyee dana dikk jot la kenn amut démb heure bii fekk na maa ngi dugg si Ndakaaru te jataay ya may toog bu ma ca toogee na ma ca yëge sëñ bi laa yëgoo ci jataay bi sëriñ bi kon nag yàlla na nu yàlla taxaw bu leen nu fàtte nag bëgg na noo liggéeyal sëriñ bi waaye nu ànd ko ak yéen Abdoulahat ngeen boo bokk ci ñaan gi ma bokk ci bu ngeen bu ngeen ko fasee ñu fas ko yàlla mën nañoo dimbale ndax ginnaaw noonu sëñ bi rek la ñu am te xasida yii nag ni ngeen ko jàngee léegi ah neex na ma <laughs> ah am na ndax man ndax man njàng man al damay jàng xasida bis bu ma xëyee dinaa jënd ñaari junniy bayit ñaari junni dinaa ko jàng bis bu ma xëyee ñi jës boog moo di mu xaddi man nag moom bokku ci moom loolu sëñ Tuubaa dafa wax ne ku koy jàng lu muy séddale da nga ci loolu moom dama koo beral ne moom bi Ibra tam nag bis bu ma jullee gee bala maa jógee fi ma jógee danaa def junni ak téeméer ak fukk ak benn Cheikh Ibra Cheikh Ibra ba ci mu jëntal ma ne ko jaral lakk <laughs> kon nag yàlla nu yàlla sutural te yàlla musal nu te yàlla may nu jàmm na ngeen ci sax te xam ne sëriñ bi moom amul tànk ginnaaw tànk kanam la am na ma leen waxee rek duñu leen sànni duñu leen wàcc duñu leen maye. ànd ak yéen kon bu ñu sañoon kenn du leen gën sëñ Blaat ñun nag ñu ngi nii waxtu woo fi nekkee danañ fi ñëw ndax la tax mooy sa jikko nit ku baax la. nit ku baax te jub nag te jaamu kotub yàlla la te noonu te noonu ci loolu la ñuy dox. kon nag bu ñu ci dee dox wala ñuy mu war na te defuñu ko sax bu nit ku dee def ne ko waaw góor wàññiwul dara yàlla nunu yàlla taxaw di nuyu jigéen ñi di nuyu góor ñi foo gis góor gu baax jigéen gu baax dana fa ne li des ci àdduna ku bëgg a bànneex ñoom dugg mën a ruba da nga yàlla rek la ca des nag mooy daayira yi nag kenn da leen ci mënul bu góor ñi def juróom danañ def fukk ñoom ba àdduna daa mel ne loolu daa yàgg moom kon nag yàlla nu yàlla musal te may leen jàmm may ko góor may ko jigéen may ko ndaw may ko mag bu leen nu fàtte daal bu ngeen di jàng daal ba léegi na seen xel dem ci seexu mi wala mu dem ci seen laat ngeen ne ay suñu mbokki taalibe yàlla na yàlla defal jàmm waay. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ Abibu kon saa bu ngeen jàppatee siyaar bi ni ko sëñ bi waxe dégg nga ko. Ah, bu soobee yàlla incha allah waaw bu soobee nangu leen ñaan amin amin amin amin yaa rabbal alamin amin amin amin yaa rabbal alamin amin amin amin amin yàlla nga yàgg di wér